ñu ànd ak na fi waxtaanee lépp lu nga xamante ne moom mooy ay euh, fait marquant <laughs> yu amoon ci euh, ci année 2016 bi comme ni ma ko waxee tout tey euh, di mercredi bu mujj ci mil 2016 alo na fi ñu ñëwaat ci wàllu culture wala ci ni mu gën a yaatoo ci suñu ay célébrité li nga xam ne moom mooy événement yi nga xam ne moo fi gën a faar ci 2016. voilà seen bu comme ni nga ko waxee coach doomu wax la doon xëyee ba pare. wala yow li nga def yow da ngay xool rek ngay yow li nga def xam nga xam nga man bu ma ree yow bu ma bokk ak yow plateau su ma reeree ñëpp dañu war a xam la la waa kan moom ma dañu war a xam ne moom moo tax ngay ree. voilà. d'accord c'est nañ ñëw xëy na ci li nga xamante ni moom moo gën a marquant comme ni nga ko waxee tout à l'heure ci année 2016 bi rawatina ci suñuy célébrité ñu accès ko un peu ci côté people bi li nga xamante ni nag xëy na moom moo ubbi atum 2016 bi aspect people bokk na ci eh, Wally Seck saak ba nga xamante ni vraiment moom la eh, téye woon eh, daal di cay woon photo wu ba dugal ko sax fi nga xamante ni moom moo di Facebook am noonee nag la ko site internet yu bari daal di woon son sac euh, frustré woon vraiment toute une communauté euh, murit yi bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkkoon àllu ndax waal yi dañoo jàppoon ni Baye Fall la doon woowee boppam amul woon droit benn yoon di téye sac ndax njabootu Cheikh Ahmadou Bamba kuy téye sac amu ci naka noone nag la Waly Seck moomu à l'époque rompron le silence ci micro waa people point sn waaye itam moom moomu la di Waly Seck yemul foofu rek benn spectacle bu mu doon amal grand théâtre durant ciseau euh, daggate saak boobu jéggalu ci ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon euh, seetaan doon xamle sax ni euh, moom saak bi ba mu koy téye du woon benn yoon frustré nit yi wante c'était juste pour le fun pour la mode ba ñu ci bari sax doon ko woowee fashion victime loolu je pense que Seynabou moom moo ubbi atum 2016 bi te bokkoon na ci li nga xamante ni moom moo gënoon def buzz partout mu dem sax ba ñu doon caricaturé ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Ahmadou Bamba par un magazine bu tudd Jeune Afrique noonu ne sax la ñu ci bari jàpp ne li nga xamante ni moom la Wally Seck defoon moo leen yóbbee loolu noonu yëpp lii bokk na ci li nga xamante ni moom moo gënoon def ba sur les réseaux sociaux peu de temps après moom moomu la di Wally ñu libeere papam Thione Seck gannaaw bu ñu ko toppee woon coowal phobie depuis pratiquement juin 2015 moom ñu ngi ko euh, tijji pratiquement ci atum 2016 euh, bi moom moomu lay di euh, Thione ñuy fàttali ni tëjum kasoom bëri woon na nag ay bruit bu nga xamante ni defoon na ko waaye ni nga xamante ni noonu lañ ko annoncé woon ci sphère médiatique bi biñ ko tijjee itam ça a fait couler moom moomu lay di Thione ci atum 2016 bi yemul foofu rek wante dafa dellu siwaat ci li nga xamante ni moom moo di musique sénégalaise ndax euh, ñenn ñi jàppoon nañ ni dootul woy ndax euh, ba muy génn euh, dañ koo mayoon liberté provisoire parce que dafa feebaroon maintenant ni nga xamante ni noonu la woyaatee bruit yi nga xamante surtout ndax ci bari jàpp nañ ni euh, bi mu tàmbalee waat woy ba créé sax ñaari xeetu orchestre benn bi mu tuddee ko Ramdan Senior mooy bi nga xamante ni moom moo di boppam ñëpp jàppoon nañ ni dafa amoon problème ak ki nga xamante ni moom moo di doomam jooju joojule di Wally Seck looloo waral sax selon plusieurs indiscrétions ca booba temps Wally demoon signé ca boîte de nuit bi muy tëgg tous les dimanches jusqu'à présent muy foofulee ca euh, Vogue seen bu lii itam retouru coon ci scène musicale bi bari na ñu nga xamante ni euh, créé woon na ay suspicion ci seen bopp loolu bu ñu tenir compte ci circonstances yi nga xamante ni moom lañ ko libéré woon leneen li gën a defi buzz itam ci famille Seck la ñuy des ba tey bokk na ci Wally Seck ak Bercy ba nga xamante ni moom la doon amal fële ca euh, Bercy le 4 juin moom moom la di Wally Seck ñuy fàttali ni événement bi bi muy ñëw bëri woon na coow lu nga xamante ni topp na ci diggante dina fees ak du fees dina ko dina ko toj du ko toj après itam ba événement bi rombee ñii ña nga doon wax fees nañu ci des naan feesul euh, vingt cinq mille vingt mille places vingt mille places yi la lëntoon bopp ñu bari ñenn ñi sax bi eh, Bercy bi yeexee ñu ngi doon xam ne ni tijji lu ñu ko moom Wally Seck salle ba yëpp dix mille places rek lañ ko tijjil maanaam moitié bi bu yemoon foofu sax à l'époque euh, Seynabou mu neex wante dafa amoon problème ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon organisateur u boobu boobule mu di waa seen Art Vision ak waa Vous nu Nous Events après demante woon nañ sax euh, tribunal ba avocat wu ñaari ñaari maison de production yooyu le daal di koy yónnee moom moomu la di Wally Seck mandat d'arrêt pour ñu euh, tëj ko ndax ñu ci bari jàppoon nañ ni devoir yi mu waroon respecté ak producteurs yi respecté ko waaye itam producteurs yi génnoon nañ wane seen frustration waxee ci micro VIP people point net xamle ni nga xamante ni noonu la leen waali ñàkkee delloo ñoom li ñu ko jox waaye itam ni waali ñàkkee reconnaissant ndax ñoom ñooñu à l'époque ñuy fàttali ni demoon nañ bay wax ni sax moom moomul yeggee ca kaw seen ba notifié benn yoon ni ñoom ñoo ko indi Bercy alors lii itam bokkoon na ci li nga xamante ni Seynabou moo gënoon def buzz euh, sur les médias sur les sites internet euh, courant de l' année 2016 du ñu yem foofu dañuy dem seeti itam euh, grossesse su Adja Diallo Adja Diallo nekkoon mannequin nekk jet setteuse pratiquement bu nga xamante ni a ko ràññee fii ci réew mi moom nag bëri woon nay site internet yu doon xamle ni depuis décès xaritam boobu la di Mati Mbodj bi mu exilé woo dem France dafa demoon euh, euh, euh, parce que dafa ëmboon dafa dafa ëmboon looloo waral mu demoon France site internet boobu la di people point sn encore moom moo ko xamle woon moom itam moo annoncé waat li nga xamante ni moom moo di accouchement Adja Diallo bëri woon na itam ay démenti nga xamante ni moom moomu la di Adja Diallo sax defoon na ko ci mu ngi doon xamle ni ëmbul benn yoon wasinul guddi yi ñu toll ñu ngi koy gisaat tàmbali waat na euh, sortie yi nga xamante ni moom la doon def waaye loolu itam euh, bari woon na it euh, ñu mu lëntoon seen bopp ndax arrêt brusque ba mu arrêté woon émission ba mu doon def fële ci Sen TV di yendu leen jaaxaloon nañu bari waaye itam ëmb gi nga xamante ni moom lañ ko doon jiiñ itam eh, jaaxaloon nañu bari ñu ñëw ci leneen itam lu nga xamante ni ndam la woon pour Sénégal ki ko fi indi woon di pratiquement Pape Diouf alors Pape Diouf ñuy fàttali ne jatum ren jii moom itam la amal tournée internationale bu am solo eh, rawatina ak la mu def fële ca États-Unis de jouer devant vingt sept mille personnes c'était vraiment lu nga xamante ni Euh, doy na waar lool waaye itam trophée ya nga xamante ni moom la fa jële itam ça avait fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux du rek sax euh, ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf waaye euh, Gospel Journey tamit bu Fada Freddy noone la jëlee woon meilleur album international melokaan bu El Hadj Diouf itam pratiquement année bi bëri na nu ñu ko sargalee au plus sur le plan mel ni bëri na ay fee yu nga xamante ni Seynabou euh, marquant na ci année bi bokk na ci un café avec euh, un café avec nekkoon téléfilm bu nga xamante ni ñu bëri dañ ko daan suivre sur la télévision Futur Média moom moomu la di un café avec ñuy fàttali ne ba tey ci atum ren la ñu doon euh, nemmeeku ay coow diggante seen producteur boobu la di Cheikh Yérim Seck ak ñoom ndax pratiquement six acteurs faaru émission boobu bokk na ci Lisa Kati Chimère Bakayoko Badiane ak ñëpp ñi nga xamante ni pratiquement ñoom ñoo taxoon doon seetaan boobu la série dañu génnoon frustré wu ne ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Yérim Seck fayu leen lim leen yore looloo waral ñu arrêté sax bañ ñoon ne duñu euh, tourner euh, saison bi nga xamante ni moom moo ci toftalu woon ñu ci bari nag génnoon wax ñoom Ndeye Diallo ñoom euh, Lisa ñoom kat yi ñu ci bari génnoon wane seen frustration par rapport ak Cheikh Yérim Seck moomu naka noonee sax lañ ko jege série boobu lépp lu nga xamante ni moom moo jëm ca wàllam coowal xaalis daal jàpp nañ ni moom moo ko tasoon Lissa moomu la itam ñu annoncé fi euh, mariage am moom euh, euh, Seynabou Lissa ñu ci bari itam depuis lors ci lañ ko gëj gis parce que daan nañ ko sax nemmee ko sur les réseaux sociaux muy photo di dugal wala muy vidéo di def wante depuis mu am jëkkër ba tey itam xamuñu moom moomu la di Lissa ci lan la nekk année 2016 bi itam defoon nañ fi concurrence bu doy waar entre ki nga xamante ni moom moo di Waly Ballago Seck ak Youssou Ndour ndax ñu ci bari jàppoon nañ ni Youssou Ndour bi mu ay album boobule di Sénégal rek dafa ñëwoon pour contrer ki nga xamante ni moom moo di Wally Seck ñeneen itam doon laajte lan moo waral Wally ba mu demee euh, Bercy yëgalul Youssou Ndour lan lan lan demoon nañ daal ba sit internet yi euh, foo ubbi pratiquement gis ñi nga xamante ni noonu lañ doon euh, tolloolee ki nga xamante ni moom moo di Wally Seck ak Youssou Ndour Maguette Barbosa itam ak Seydina Thioune bëri na ay euh, encre yu nga xamante ni euh, kuule na ko ndax moom moomule di Henriette Barbosa nekkoon pratiquement célèbre jessedeuse yi nag lu récent la Seynabou euh, dafa divorcé ak Seydina Thioune Seydina nekk doom ci Cheikh Béthio Thioune ba média yu bëri dal di koy démentir people point sn ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo di xam ne ni boobu boobule divorce c'est vraiment confirmé lu nga xamante ni la c'est confirmé ndax la fille actuellement elle n'est pas à Dakar elle sens te bëri na nit ñu nga xamante ni ñu ngi ko fay apercevoir ak xëy na keneen ku nga xamante ni du jëkkëram alors lii nag vraiment Seynabou moo nekkoon pratiquement euh, fait yi nga xamante ni moom moo gën a marquant ci année 2016 euh, bi en guise de euh, people vraiment suñu ay paparazzi bëri na lu ñu bind jëmale ko ci wàllu people mais comme mënuñoo wax lépp dañuy wax rek li nga xamante ni xëy na boo laajee Google mu génne la ci ay million de vues ah noonu baax na wala dafa loo fàttaliku leneen bëgg ma yokk ci waaw année bi itam gis nañ la nga dem ca Youssou Ndour sol fa robe bu gàtt weex ñu daal di lay photo dugal ko Dakar Bouge loolu itam ci année bi la xew Seynabou Ndiaye kii présenté petit loolu ci année bii la ah. si la def nag mais damay demaat gën a gàtt ba année bi itam maam Sidi Diop ci la am euh, vraiment soxna. am ci am ci bébé ah. <laughs> voilà année bi man ak di jëmaxu def nañ fi Noël bu doy waar le 25. waaw année bii ci la coach solee chemise bu rafet. année bi ci laay nuyoo papa Modou Diouf ak papa Papis Mbaye di la jox rendez-vous euh, Seynabou suba incha allah si sa actu <laughs> national international ba suba. <laughs>